salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi maa ngi doog a yow yéen ñëpp ngi naan gaynoo SRS gaynoo SRS gaynoo SRS du gaynoo SRS affaire bi boy yu Touba yi ci boppam ñoo kaw kawee maanaam nouveau technologie bu bees bi xamuñu ci dara ku jóg dugg ci TikTok bi dof bu jóg ubbi TikTok dafa am ay nit ñoo xam ne si nii TikTok du pour ñoom rawatina boyu tuubaa yi mais du ñëpp de déglu leen ma bu baax boyu tuubaa yi mais du ñëpp am na ñoo xam ne ay nandi lan mais am na ñoo xam ne ay kaw kaw lan ay dof lan ku la fekk yow nga dëkk Touba dëkk Mbàkke nga ne man ngay saraxe dëkk Touba man ma yaroo géejawaay ah yaroo diggante géejawaay jàmm gën dëkk ñoome màggee Europe ngeen teg ma dof te man li ma xam-xamoo leen ko man ay ree la may def booy tuubaa yi yeewu leen yeewu leen ngeen comprendre nouvelle technologie bi yéen miinu leen TikTok da ngeen di jékki-jékki rek di tararari man nag ku ma nar a saraxe ma rey la damaa yaakaar sa géy da ngay génn nga wane ay preuve merci